Bienvenue dans votre maison de production. GP, Gabon Production, Académie Médan TV, dans les besoins de la population sénégalaise. yaa man lawoo amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma lig waa ak li xam ne ñooy saytu cancer. pour euh, jàppale nit yi. mu ne pour jàppale nit ñi. ndax ñu teel a gis euh, feebar bi. ndax teel a gis teel koo faj. teel ko ñëwoon nañ fi. mu ne ñëwoon nañ fi. waa mu ne ñëwoon nañ fi doon na ñaan ngir nga wax ak askan wi. mu ne nga defaloon leen ko. mu ne Mbàkke ñu amoon ci ndam lu rëy rëy. mu ne ren ñu ñëw. mu ne ren ñu ñëw ngir sant la jaajëfal la. mu ne sant la bu baax a baax. wax ne. mu ne ñi la wax ne la ñi nga xam ne dañ leen di saytu te duñ fay dara ci loolu. mu ne ren jii dañoo bëgg Touba lañ ko bëgg defee. mu ne bu ñu ñëwee. bañ fi njëkkee ñëw dañu formé woon. ne bañ fa njëkkee ñëw dañoo formé woon ñi nga xam ne dañoo nekk ci wàllu santé. mu ne pour ñi ñi dañoo ñëwoon ñi nga xam ne dañu nekk ci wàllu sante bi ñu formé leen pour ñuy saytu lu mel li nga xam ne mooy canceru li jëm ci butitu njurukaay. mu ne forme boobu nga xam ne formé woon nañ leen ko. mu ne dañuy dellu si xool ba xam ñoom ba tey mokkal nañu wala des na. Mhm. mu ne li ci des. ñu li ci des ñu wanaan leen li ci des. ñu ne ñu gën koo man ndax njabootu Touba. ndax njabootu Touba ñu mën a mën a mucc ci feebar bu bon boobu. mu ne léegi nag. mu ne léegi dañ def journée boo xam ne. mu ne jigéen ñi nekk ci Touba gépp mu ne ñu ñëw ñu seet leen te duñ fay dara mu ne loolu moo leen indi woon mu ne ñu ñu bëggoon yow Mbàkke nga ñaanal leen ci mu ne jox leen ci ndigal itam ndax ndax la 16 fukki fan ak juróom benn ci weer octobre ak fukki fan ak juróom ñaar ci weeru octobre ci lañu war a ñëw Touba mu ne ñu bëggoon itam mu ne ñi nga xam ne mu ne ñu ñuy àndal dañuy ànd ak ay docteurs yoo xam ne Dakar la bàyyi ko mu ne ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen encadré di leen jàppale ci liggéey ñu am fu ñu mën a dal fii ci Touba. mu ne ñu am fu mën a dal fii ci ndax mhm. ñu mën a def liggéey bi ni mu ko waree. mu ne biñ ne biñ fi njëkkee ñëw boole woon nañ leen waa Hizbu Tarxiya mu ne moom nga leen boole loon mu ne ñu dalal leen wax dëgg yàlla toppatoo leen lépp lu ci war lu ne def nañ ko mu ne yow yow rek la ñuy déglu Mbàkke mhm. mu ne loo leen ci sant rek ñu defee ko noonu incha allah mu ne ñu ngi ànd ak mu ne waa Dubai Port World mhm. mu ne ñoom waa Dubai Port World ñu leen di jàppale lañ ci seenu liggéey maam Yacine mii moo leen fi représenté ma génnu moo nekk nii moom mii soxna ma Guénou mooy euh, présidente association bi imam Moustapha Sarr moom moom mooy gindi ñu feebar di wax ak ñoom ci lislaam ci di leen delloosi ak Mansour ak Omar ñoom lañu àndal ñoom ñëpp rek waaw bisimilah. Mhm. jërëjëf gay jërëjëf <laughs> seen seen addiya mu ne dégg nañ kàddu yu baax a baax mu ne lépp leer na mu ne am nañ ci mbégte mu baax mu ne yaakaar mit gën na cee dolliku ci wàllu wér-gu-yaram gi mu ne ni ko bëggee rek noonee la ci ànd ak yéen jox leen ci ndigal mu ne lu ngeen ci aajowoo bu loolu agsee euh, balaa loolu agsi nañ ko ko yëgal moom mu joxe ci ndigal incha allah ànd ceeg yéen ci lépp rek incha allah ca nam waree lépp jërëjëf incha allah tàlle mu ñaan le bisimilah tàlle لغوت أزمان اللج يا ملو أموره وخنت لي رصايا رزاق يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki Touba ñu ngi leen di nuyu ñun la Ligue sénégalaise contre le cancer mooy Euh, association bi nga xam ne dañuy saytu cancer ci Sénégal yépp octobre nag niñ ko xamee mooy weer bi nga xam ne moom lañu jubleel canceru ween léegi nag Sénégal canceru jigéen ñi moo ci ëpp moo tax ñu lëkkaloo ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy DP World pour di wër senegal ndax ñu mën di seet jigéen ñi nga xam ne dañu am cancer wala di seet jigéen ñi nga xam ne dañu war a def dépistage ndax euh, suñu présidente muy docteur Fatma Guénoun dina leen expliquer boo teelee gis feebar bi ci yow niñ ko mën a fajee ba nga mucc ci loolu moo tax nag tey ñu ñëwoon tuuba ndax ci octobre ren jii dañu bëgg dellu si Touba ndax ñëwoon nañ fi ci 2017 former sage-femme yi pour ñu mën di xool jigéen ñi fi ne ñu ñëwaat nag pour xool formation boobu ñu leen defaloon fuñ ci tollu ak itam def journée bu nga xam ne dinañu consulter jigéen ñi te duñ ci fay dara ma jox kàddu gi suñu présidente di docteur Fatma Guenoune. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, maa ngi nuyu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi di nuyu waa Touba euh, di gërëm di sant Serigne Mountakha euh, daf ñu recevoir tey bi ñu ñëwee di wax ak moom ci programme bi ñu jëm ci octobre rose. Euh, foog naa ne léegi Sénégal kenn umpalewul lan mooy octobre rose mooy weer bi nga xam ne ne dañ ko jagleel cancer wu ween mais ñun fii ci Sénégal ñu rax ci cancer bunt butitu njurukaay euh, programme octobre rose nag octobre rose ñu ngi ko tàmbali Sénégal 2010 euh, di wër ci Dakar ak région yëpp Touba ñëwoon nañ fi 2017 ren dinañ suñu programme ren Euh, tout ci décentralisation Touba la ñu koy tàmbali donc suñu ñëwee dañuy former euh, sage-femme d'État yi nga xam ne ne ñoom ñooy kër docteur yi nga xam ne ne jigéen bu jaaxle ci ñoom ngay dem ku won na lor ci moom euh, ci ñoom ngay dem donc ñoom foog ñu gën leen xarañal seen xam-xam pour ñu mun a saytu cancer buntu buti tunjurukaay te technologie bi avancé na ku ñu saytu ba gis ne Euh, euh, am na benn lésion précancéreuse bi nga xam ne ne du cancer mais suñ ko fa bàyyee dina jur cancer euh, dañuy jàngal sage-femme yi naka lañ koy xàmmee te naka lañ koy fajee faj bi du ci àgg minute ñu faj la suñu gisee ci yow lésion boobule donc suñu ren suñu programme décentralisation ñu ngi koy tàmbalee Touba après doog a wër yeneen région yi euh, maa ngi sant euh, DP World Dubai Port World Sénégal bi nga xam ne ne depuis 2015 saa yi ñuy def décentralisation moo ñuy bunge ci fépp fu ñuy dem euh, parce que ñoom dépistage saytu boobule dafa am njëkk même euh, matériel bi nga xam ne ne dañ koy bàyyi ci euh, district sanitaire yi ñuy dem ñoom ñoo koy jënd ñu euh, wàcc ko fii ba nga xam ne ne suñu jógee ci Touba sage femme d'État yi dinañu mokkal naka la ñuy saytoo cancer buntu bu titu njurukaay te naka la ñuy nemmeekoo Euh, cancer wu ween suñ ci dajee donj te ci kaw loolu le euh, donc dinañ leen bàyyi matériel appareil bi ñuy fajee bàyyi leen appareil yi nga xam ne ne ci la ñuy defee dépistage bi euh, suñu delloo Dakar donc suñu defee formation bi le 16 le 17 dinañu dépister lu ëpp juróomi téeméeri jigéen ci Touba. ak li ko wër donc euh, képp ku dégg message bi le 17 euh, dinañu def euh, dépistage journée de dépistage avant le 17 sax dinañu def le 16 dinañu def benn caravane de sensibilisation ci biir Touba ak li ko wër le 17 nag district sanitaire bu Djelmo jéemul jéemul la ñuy saytoo jigéen yi képp ku dégg message bi le 17 octobre nga teel a ñëw pour ñu seet la euh, ci wàllu cancer wu ween euh, ku ñu danañu seet sa ween ba nga xam ne ne euh, ba pare ñi nga xam ne ne dañu gis ci ñoom lënt lënt ci seen ween dinañ leen may boowu mammographie te dinañ leen accompagner ci seen diagnostic parce que cancer balaa ngay wax ne nit ki dafa am cancer faw nga def Euh, diagnostic bi daa def su dee cancer ween daa def mammographie daa def biopsie après daa def euh, scanner balaa ngay ko tàmbali faj bi donc LISCA euh, dina bunge malade yi pour ñu def seen diagnostic te te tàmbali seen faj ñu ngi rafetlu nag. Euh, hôpitalu Touba bu bees bi nga xam ne ne dañ fay faj cancer am na appareil yu radiothérapie te am na euh, docteur yi nga xam ne ne seen xel màcc na ci cancer donc képp ku ñu saytu te nemmeeku ne am nga euh, da nga am tuuti cancer dinañ la fa yebal bunge la ci sa faj donc maa ngi gërëm sëriñ bi nga xam ne ne daf ñu dalal parce que dañu ko doon ñëw jël si ndigal di ko xamal lañu ñu war a def ci biir Touba parce que nit ki sooy def dara da ngay jël ndigal euh, tàggoo jox nañu euh, permission ne mun nañu fi ñëw le 16 ak le 17 euh, te dinañu bunge ci accueil beeg lépp ñu ngi koy rafetlu donc maa ngi ñaan waa Touba yëpp le le 17. Eh, jigéen bu nekk war na mun a ñëw pour saytu sa yaram ci cancer bunt bu tëdd njëglukaay ak cancer wu ween asalaamualeykum euh, wa rahmatullah taala wa barakaatuhu euh, man maa ngi tudd madame Cissé Mame Yacine Diop nekk responsable développement durable bu DP World Dakar euh, ñun nag ñu nekk partenaire ak sponsor officiel si li nga xamante ne moom la présidente LISCA wax léegi di docteur Fatma Guénoun muy octobre rose décentralisé waaw mun naa ko tuddee noonu maanaam lépp li nga xamante ne tey activité la euh, ligue bi di ko def jëmale ko ci euh, biir région yu Sénégal yi euh, ñun dañ leen ciy gunge ci financer activité bi yëpp que formation sage femme yi wala dépistage bi nga xamante ne moom la ñuy defal jigéen yi ah tey nag ñu am mbégte lool waaw ñëw ci dëkk bi nga xamante ne moo di Touba. Euh, nekk euh, deuxième ville euh, ci Sénégal ñu amati mbégte sëñ bi di sëñ Mountakha Mbacké yal na fi yàgg lool te ànd ak wér daal di ñuy dalal mu sedd lool suñu xol ndax gis nañu yitte bi nga xamante ne moom da koo am ci doomu aadama du ma ne si taalibe yi wala si Touba de mais dafa am yitte si doomu aadama ndax day jàppale ba jàppale lu jéggi ñi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal ñoo nekk Touba. donc ñun euh, loolu daf ñu gën a dalal ci li nga xamante ne tey ligue bi da koy liggéey ñun ñu koy liggéey man mii ci sama bopp lii sama liggéey tey nekk loo xamante ne day jëm ci askan bi donc ñu sant ko lool tamit ci li nga xamante ne jox nañu ndigal te déglu nañu. bu baax a baax ba xam li nga xamante ne loolu la ñuy wax ak loolu la ñu bëgg a def fii si Touba le 16 ak le 17 octobre incha allah message bi docteur Guénoune jàllale na ko jigéen yi ñoom ñoo ko moom ñu ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu ñëw teew bu dee ñi nga xamante ne si wàllu kër docteur yi la ñu def formation yi ànd ceeg teewlu parce que ñu xarañ ñoo koy def ba nga xamante ne bés bu ñu fi jógee ñaari fan dañ naan bëri na bëriwul mais bés bu ñu fi jógee ñoom ñu mun a continuer liggéey bi nga xamante ne euh, moom la moom la moom la waa waa ligue bi di def ak euh, professeur yi ñuy àndal ci loolu jigéen itam même chose bu ñu ñëwee ñu seet leen te ligue bi tamit day def suivi ci ginnaaw manaam lépp loo xamante ne daf cee war ñu war ko cee def ci lu luñ ci munti gis ñoom dinañ ci topp euh, jàppale jàppale ñëpp donc loolu daal laa amoon lu ma ciy sànni ay kàddu di leen jox dig daje